la soxna gumba la soxna ndeysaan xoolal kay gumba gumba gu rëy xoolal mer ba xoolal mer bi di wegoo ajuma oxo dudal dudal kontaan na ndeysaan Mansour kontaan na Aliou Vision Aliou kontaan na Aliou kontaan na ndeysaan waay wa sax na waay wa lay sax waay wa sax na xale teg na ci gàllankoor bi

Thank ay man foofu baax na fi nga taxaw baax na Sidi Sidi foofu baax na gars yi ñeneen baax na ay numéro Sonko ay numéro Sonko ay bàyyi ko bëgg Voilà, merci beaucoup. jërëjëf. asalaamaaleykum Rufisque. asalaamaaleykum Rufisque. cette mobilisation est oh, oh. exceptionnelle. Sonko ci ñëpp gis nañu seen taxawaay Babsa aussi donc vraiment macha allah léegi nag léegi nag xam naa ni yàkkamti ngeen ko dégg quoi. <laughs> pression bu ma bëgg def à de fii Rufisque balaa ñuy jublu ci leneen ma bëgg ngeen may ma dal ak déglu ma def déclaration boobu mën ngeen ma ko may. xam ngeen euh, jamono ji ñuy wax am na lenn ci suñuy frères ak suñuy sœurs patriotes. bi ñu agressé fële ca Saint-Louis gaañ leen gaañ yu ba ñu nga ca hôpital fi mu toll nii may ma rekk ngeen dal te bàyyi wax ji parce que li may wax dafa am solo may ngeen ma ko bi campagne bi démarré ba léegi Pastef pour un parti qui est au pouvoir a été un parti plus que responsable. ñetti agression def nañ ko Pastef premier jour campagne bi agressé nañ Pastef à Dakar ñu doxaat tuuti ñu agressé Pastef à Koungheul ba damm loxo kenn ci leader yi muy Malick ñu attaqué waat Pastef à Saint-Louis ak ay paaka ay jaasi ay grenade lacrymogène ba gaañ fa ay xale lii nag responsabilité état bi la parce réew mi dafa changé man maay premier ministre du Sénégal man am naa sañ-sañu en tant que premier ministre ma joxe ay ndigal jox ko ministre de l'intérieur jox ko ministre de la justice parce que ministre de la justice c'est une autorité politique c'est pas une autorité judiciaire bu kenn gëmloo nit ñi monsieur le ministre de la justice dafa am indépendance nañu koo defoo ni man su ma nee ministre la justice poursuivre Déthié amul sañ-sañ a woo procureur général kooku woo procureur pour ñu poursuivre loolu mooy dëgg bi ministre de sama gouvernement la nekk man ñoom ñëpp maa leen consulter proposer ko président de la république mu valider loolu mooy gouvernement du Sénégal kon dégg ma bu baax li may wax lii wane ni réew mi am na soppi mooy man bi campagne commencé ba léegi woo ma ministre de l'intérieur en tant premier ministre woo ma ministre de la justice en tant que premier ministre waaye en tant que candidat woo naa leen campagne bi laa woo ministre de l'intérieur ne ko Barthélémy Dias jënd na ay ngànnaay déglu ma rek déglu ma déglu leen ma leen ma s'il vous plaît. sa sa loxo day yàq li may wax. nee leen tekk rek suñu paree nañu animé. début campagne bi laa woo ci information yu wér tëng Barthélemy Dias jënd na ay ngànnaay jënd na ay grenade jënd na ay fusil à pompe jënd na ay jaasi fas yéene wu lu dul di essayer attaquer ay convoi Pastef man nag c' est le candidat tête de liste moo la woo jëlal say matuwaay pour loolu ñu régler ko rapidement. agression bi njëkk am premier jour campagne ma woowaat ko en tant que wax ko li ma koy wax woo ministre la justice en que candidat wax leen li wax ñu toog seetaan mbir mi dem. ñetti agression zéro arrestation loolu c'est la faillite de l'État et c'est le candidat qui parle dama bëgg ñu xam ni ñun ni ñuy gérer état ute naag ñeneen ñi en tant que candidat l'État a failli à garantir la sécurité de, de du parti PASTEF qui se trouve être le plus grand parti du Sénégal et qui régler lui-même ses problèmes te loolu du yoon ba tey jii fële ca ndar parce que ñoom nee nañu romb nañu ab convoi mu am ñu yuuxu sonko sonko Assane Diouf wàcc ne ku fi wax sonko ñu def la nangam ñu génne seeni jaas yi yéen digeen gis image yi su ngeen demee ci réseaux sociaux yi loolu garaaw la ci réew mi woo naa nag ministre de l'intérieur nee naa ko depuis 15 ans dans ce pays benn waaye fi nekk ñu tuddee ko Barthélémy Dias mu xamadee xamadi ba fu xamadi yem yaruñu ko waaye baayam bu dee baayam moo xamadi moom dinañ bañ a xamadi parce que na ngeen ma baayam di wax lu bon ci man ma noppi ne jaru ko waaye bu matoon li mu doon man ma mat ko doom du taxaw ci télé yi di wax lu bon ci man ak lu ñaaw na Sénégal bis ni ki tey loolu jeex na Sénégal li def ci campagne bi man dama ne woon à partir de jeudi damay dem defi Médina Yoro Fula dem Vélingara terminé en beauté à Bignona waaye fii la ñuy toog ñoom ñoom dootuñu campagne ci réew mi dootuñu campagne ci réew mi sa kii gët jeexul ci réew mi de nekk ci nguur taxul ñu doon ay faiblard mais dootuñu nangu benn militaire Pastef benn militant Pastef ñu koy jàmpaaka wala ñu koy dóor lacrymogène wala ñu koy gaañ parce que dans ce pays nag hypocrisie bi dafa baax les électeurs te loolu moo nekk di am ci réew mi toog nañu ñu commencé convoquer suñuy naan dañoo taal siège u jàmbur ci benn preuve ñuy convoquer suñuy militants te jamono jooju la mat la la veille agressé nañ suñuy militants mais ba léegi guñu kenn loolu mooy ban gestion. j'ai interpellé le président de la République ci boppam. wane ni réew mi changé na et bien nous sommes au-dessus de la mêlée on ne fait pas comme les autres ba ñuy jam suñuy nit chaque jour loolu duma ko nangul kenn président de la république sax ñoo ko nangu moo tax nag gàtt sa gàtt sa dellu si nag li des ci campagne bi dañ leen bu baax parce que ñoom li ñuy bëgg a prouver li ñu bëgg a def mooy gëm nañ ni ñoom ñàkk nañu ba noppi xam nañ ko léegi dañ jàpp ni suñ ñu poussé ba ñun ñu réagir Sénégalais yi dañ daan ñoom ñoo def violence bi wan ñu gannaaw waaye Sénégalais yi mën nañu ràññee de ñun def nañu 10 ans d'opposition bañee na ci opposition dañ ne ñun du ñu mus a attaqué kenn waaye droit de la droit à la résistance la ñu mus a wax du ñu attaqué kenn waaye du toog di seetaan kuy daal suñu kaw. yéen ñëpp nag maa ngi leen di jox rendez-vous demee à Dakar Baobab la ñuy demee def suñu caravane Baobab. moom ñu ëpp ko nit ëpp ko doole ëpp ko fit te du tere benn sénégalais voté ñu parce que xam nañ fu dëkk bi nekk kon waa Rufisque maa ngi jéggalu ci ni ma waxee waaye nit sa njaboot rek nga am. nit nit sa njaboot rek nga am te njaboot gi tey ñu yor nguur ñu naan njaboot gi dañuy continuer di leen agressé man may le responsable moral de ce parti ma toog di ko seetaan loolu jeex na tey kon la ca des nag defe naa candidat yi jël parole wax nañ ko ba mu leer nañ élection bi yéen ñëpp xam ngeen enjeu bi mooy en finir avec ses politiciens alimentaires nga xam ne sàcc alalu réew mi randal jaay des intérêts stratégiques du pays à des étrangers clientélisme loolu rek lañ gis ngeen Barthélémy Dias man maa ko joxoon gannaaw yàlla mairie Dakar yéen xam ngeen ko Barthélémy Dias mënul gagné benn quartier de Dakar maa ko joxoon mairie Dakar waaye décevoir na ma ndax li mu nekkee mairie Dakar bàyyi leen ban bi ñu toogee dama ne président Diomaye yow xam nga ni li ñuy def ci mairie bourse bourse fictive yi ñuy def naan lii ay étudiant la fekk duñu ay étudiant ñu dama ko seen poche surfacturation marché yi man leen rek laa demandé nañu audité les mairies nañ ko commencé mairie Ziguinchor bi nga xam ne man maa nekkoon maire bu boobaa kenn du ne dañoo def chasse la sorcière waaye li ne mairie Dakar ko yulli ba mu génn dinañ ko yulli ba mu génn parce que xam nañ li fa xew et j'interpelle une fois de plus l'état du Sénégal un état ne doit pas être faible yàgg naa di interpeller monsieur le président de la république yu bëri bëree bëree bëri suñ ko defoon noonu tey du ñu nekk fii ñu un état ne doit pas être faible. li xew Sénégal la ñuy wax ci média yi kenn ñeme ko woon def ci Senghor kenn ñeme ko ci Wade kenn ñeme ko woon def ci Diouf kenn ñeme ko woon def ci Macky Sall tey la gis ngeen benn vidéo benn waay bu taxaw ne régime bi ils vont empoisonner toute l'opposition xam naa leen loolu ñemewoon nañ ko def ci yeneen jamono c'est parce que dañ leen laissé ñu def loo wax ñu ne non on doit montrer qu'on est différent un pays nag on le gouverne dans la discipline dans biir ne ku ne xëy saaga Ousmane Sonko suba ba ngoon jot dara dina ci fekk wala dina jeex ci réew bu ko état réglé wu ñu réglé ko sortez massivement voter le dimanche woon nañ ko largement et ñu amaat nag gën koo yaatal te ñenn ñoo xam ne le maire Omar gis ni ñii newuñu ci dëgg ñu ñëw ne dañuy ñëw yokk doole ànd ak kon man gëm naa doon 60 pour cent la ñu amoon Rufisque gëm naa ni bii ba 85 pour cent. partir de demain waa Rufisque waa Kër Massar waa Guédiawaye waa Pikine boote ko waa Dakar juróomi fan yi des ci campagne bi dinañ xam ni Dakar am na borom Sénégal am na borom te Pastef mooy borom Dakar mooy borom Sénégal ñu leen gërëm leen sant asalaamaaleykum xale bu porté téléphone na bon ci camion yi s'il vous plaît. et merci Teungueth gis nga commentaire bi mu xaar ne affaire sans bëgg bi mbokki Sénégal mbokki àdduna bi ñu ngi nuyu ñëpp di leen kontaane di wax ne jamono bii nag euh, yëf yaa ngi noonu bu defee nag Barthélémy Diaz moom la euh, président Ousmane Sonko wax ni suba ci kàttanu yàlla suba incha allah foofu la jëm. su ko defee fa lay commencé fa defee discours am sax la wax bu ko defee li président Ousmane Sonko wax ñëpp yëg nañ ko ñëpp dégg nañ ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne tey caravane baa ngi noonu la président Ousmane Sonko mi doon yëngal tey nag yaramam dafa tàng cër. tey yaram dafa tàng su ko defee tey xol bi tey xol ba seddul tey xol ba seddul tey xol ba seddul ndeysaan su ko defee le Sonko mi noonu def na fële nga xam ne mooy jam euh, ñaajo barñi te ngeec ba tey ñu ngi noonu. mais noonu sunu gars kon yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon suivre partout dans le monde entier ñu ngi leen di gërëm di wax. mais jaral ngeen ñu ko di wax ni seen mbégte ak seen bànneex mooy sunu doole. 2A TV la chaîne du peuple yéen la fi nekkal bu ko defee gaa yi ngay continuer di di di message di gërëm di jégóora di gërëm tamit maay boobu mi nga xam ni moo doon assuré su ko defee su ma àggee danaa naanaat garab yëngal. mi ngi noonu su ko defee. bari ñi lañ doon def dem jugee dañoo jugee jam ñaajo ñëw bari ñi jugee bari ñi ñëw fi nga xam ni mooy ci diwaanu Tëngéej yëf yaa ngi noonu kon nag gars yi maa ngi leen di jox dig dajee ba ci kanam incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ba dee sonn nag maa ngi jégalu.